bi yëpp c'est la transparence dégg nga ñu ne jub jubanti et jubal mhm. transparence dafa ànd ak reddition des comptes parce que reddition des comptes mooy chaque année képp ku gérer nga ne man lii laa gérer nii laa ko gérer mhm. mu am corde de bu ñëw contrôler la ne la nii nga gérer lii baax na lii baaxul loolu c'est routine loolu waruñ ci woon sax di discuter di werante. mais que tout doit être ci place publique bi ñuy vilipender ay nit yoo xam ne amaana sax seen responsabilité egg eggul fenn fi. Oh, bu nekkee à titre individuel des personnes nit amoo droit taxaw di vilipender nit. mais dafa am loo xam ne boo nangoo gérer da ngay nangu sa gestion ñu mettre ko sur la place publique looloo tax loi jox corps de contrôle yi yu mel ni nag ak Cour des comptes ak IGE. Mm-hmm. ñuy publier publier seen rapport di ko publier. Mm-hmm. rapport individuel. Cour des comptes paree benn rapport loi bi daf ne ko. danga ko war a publier waroo xaar sax fin d'année ngay boole lépp di publier ndox mhm. bu ñu demee ba wax loolu c'est parce que c'est la transparence moom la ñuy prôné te képp ku gérer un franc de l'État amatuñ lu ñuy nëbb ci yow ci gestion bi nga def ci un franc. y' a y' toujours eu des rapports mais suite la ci dul am c'est ce qu'on a reproché au président Macky Sall espérons qu'avec le président Diomaye yëf yi dina leer. du yem rek ci publier ko vilipender nit ñi après man dama gëm loolu chaque année bu amee ñu situer les responsabilités. le mhm. président Diomaye ni mu wax. ak ni mu ñëwee ak acte yi muy posé eh, foofu la jëm moom nag image am ak antécédent yam war na mun a tax mu mën a def loolu mu ñu gëm loolu mhm. parce que moom ñëpp gis nañ ko il a fait quinze ans aux impôts et domaines bokkul ci enrichissement illicite bokkul ci ñu am ay kër bokkul ci ñu